na am mbégte ak contentement jàkkaarloog yéen ci DS Prod yéen suñu mbokk internautes yi nuyu nañ leen di leen dalal ci seen émission bu bees micro pour micro pour tous nag nekk émission boo xam ne day dalal képp koo xam ne ndaanaan nga ci li nga nekk muy fecckat bi woykat bi sportif bi ba ci acteur bi tiktoker bi duñu bàyyi kenn ngeen ànd ceeg seen xarit Dija Saliou tey nag ñu am mbégte ak contentement dalal un jeune talent de la musique sénégalaise nga xam ne dafa def ses preuves ba ex mu ex tey kooku du kenn ku dul El Maestro le kàngam ñu dalal ko. nuyu naa la ñu dalal la ci suñu biir émission micro ma bàyyi la nga nuyoog ñi ñuy seetaan. Euh, salaamaaleykum àdduna wërngal képp salaamaaleykum waa Sénégal ak euh, mbokki internet yi nga xam ne ñoom ñooy suivre des Prod euh, di nuyu Khadija Saliou mu ngi noonu sama sama wóolare bu yàgg maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu caméraman yi di leen wax ne man la El Maestro artiste musicien beatmaker waaw falaa mën a yem maestro comme ni ma ko waxee sànq ci présentation bi nee naa da nga def say preuve ba egsi fi nga egsi ni mhm. nekkatoo ko xam ne dañ koy présenter Sénégal parce que quoi qu'on puisse dire tu es jeune talent boo xam ne wan nga wane nga say preuve mais ma bëggoon nga defal ma tuuti sa sa story wax ma sa jaar-jaar euh, nan nga def ba egsi fi nga egsi tey ak lan ma la dugal ci musique ok su ma doon wax moom sama jaar-jaar moom xam na dafa nar a kii xanaa dama koy résumer rek ñu rek. voilà parce que dama nekk art dama nekk euh, artiste ba nga xam ne man Dakar laa judo a Yoff mhm. mais sama enfance yëpp Diourbel laa ko passé fa laa côtoyé la musique euh, fa laa def musique mhm. ak sama benn xarit yàgg na trop ba maa ngi am 11 ans. Mhm. sama xarit bu ñu naan Stéphane Kabou. moo ma doon ñëw affaire fecc lañ daan ñëkk def Oscar des vacances affaire yooyu. chaque vacance moom da daan ñëw vacances si Dakar kii sama koñ. léegi nag chaque année ak lu lu ñuy def. d'accord léegi nag maire yi dañ daan def tour sama ñoom yaay mooy seen affaire tontine yooyu dama daan ñëw yaay doom may juróom may ñu juróom ñu ñu wayal la affaire yooyu noonu. mais c'était euh, benn passion ba nga xam ne c'était au début la ñu dem ba ci biir. semaine de l'école de base mooy semaine culturelle yi. nga xam ne moom yi am école élémentaire yi. Mm-hmm. boobu dama daan ñëw nu ma neex mel. damay weex ñëw taxaw fek <laughs> ne leen aar tegal leen ma ins ma way ñu tegal ma ma way mais sa bu ma daan way rek. dama daan impressionné nit ñi quoi. Mhm. léegi nag bi ma amee entrant sixième ma dem collège. Mhm. ma commencé nag euh, affaire bi commencé ma intéressé bu baax. à mhm. euh, bi may def cinquième mm, euh, la ma madame Sarr. sama benn professeur ma koy saluer de passage. moo njëkk yëkkati xaalis jox ma ma def son. mooy sama première son bu ma def bu ma doon way benn égo trip la woon. bi ma jugee ci loolu ñu bëri gars yi commencé nag ma nekk staru école bi parce que yombul woon jamono yooyu boo daan rap wala ngay way gars dañ naan non sa doom bi yàqu naag gars yi xamuñu woon. loolu waaw parce bu njëkk dañ ko dañ dañoo amoon beneen dañ beneen bët bu ñu la doon voilà mhm. beneen vision beneen mhm. vision. léegi nag ci la ma waa vision mondiale euh, benn euh, ONG la bu ma jël pour ma mhm. def tournée de sensibilisation sur le sida man ak ñoom Mag Daan. ak ak ak ak ñoom Magay Isma Diouf. Euh, ci lañ dem wër. paataar njoob nekk ay star foofu quoi mais saa bu ma woyee rek. Mhm. ak sama tuuti waaye gars da da leen daan impressionné booy bi ni muy way nii affaire yooyu noonu. Mhm. léegi ñuy dem dóor nañ ma ci tamit ba ma sonn mais xam nga. kon daal c'était pas facile daal. non musul yomb musul mais xam nga rek boo gëmee benn affaire. Mhm. say waajur dinañ dem ba à un moment dañ lay bàyyi parce que man sama yaay moo ma yar sama papa dafa teel a gaañu. la donc ci ci yarin boobu mu ma yaree. man dama daan bëgg di def lu lu lu correct. sinon dañ naan rab bi moo ko yàq. Mhm. léegi man daaw ma crise koros daaw ma tux daaw ma naan daaw ma topp tentation yi quoi. Mhm. mais n'empêche li ma bëgg a def dina ko def. Mhm. léegi nag noonu laa def ba daal di euh, commencé nit ñi dem di ma xam Jurbel may dem di dem di dem ba jël fi concours Nescafé dem école nationale des arts dem ba nekk beatmaker ba fi ma agsi tey nii dama ko résumé parce que amuñu temps ma wax lépp quoi. kon daal mu ñu bu ñu jàppee maestro moom euh, à bas âge la commencé woy de bi mu nekkee xale temps primaire. temps primaire mu nga commencé woy ba tey mais avant ñoo continuer maestro le kàngam tur bi fu mu jógee et pourquoi maestro avant ñoo continuer lan moo lan moo indi tur bi le maestro le kàngam. bi euh, sama papa euh, laa toogaloon benn bis di seetaan télé. Mhm. léegi ñu ñuy seetaan bi ñuy seetaan télé ñu gis benn mooy opéra yi. Mhm. chef d'orchestre bi moo daan taxaw ci kanam di def nii ma laaj ko papa. kii ñii nii di ñooy diriger musiciens yi mu ne ma waaw ma ne ko ñii nan lañ leen di wooyee mu ne ma kii c'est le maestro fii ku fi kii rek moom mooy kàngam bi hmm. mooy ndaanaan bi bokk autant pour moi parce que jamono yooyu xaw ma kànga xaw ma la moo kàngam hmm. léegi nag maestro rek laa doon wax sama bopp hmm. léegi nag euh, bi maestro bi ñëwee ma dem ba jamono yi ma nekkee dakaar di def école des beaux dafa am sama waa samay xarit yi nga xam ne samay ami d'enfance moom laa daan àndal ñoom dañu mën mbalak dañu mën tooñ mm-hmm. léegi nag dañuy yàqamti nit def benn erreur wala dara ba ñu tooñ ko ci mm-hmm. léegi dañu amoon benn euh, groupe ñu tuddee ko bañ lal bëgg basan mm-hmm. léegi bañ lal bëgg bassan parce que guddi yi fa lañ daan ne di guddi gi ñëpp a ñu jéppi woon parce que ñëpp bu ñuy nelaw surtout weeru koor gi ñun fa la ñuy ne di tooñ di def lu ne léegi nag ñun dem ba à un moment ñu ne dañ koy def Euh, association nga xam ne day am ay papier tout. Mhm. mais xam nga mënoo dem di def ay bañ lal bëgg basan ci papier. non non nekk léegi nag ñu ne dañoo toog def réunion ba nga xam ne dañuy laaj ban tur la jël. léegi ñëpp di wax tur ñëpp di wax tur man ma ne pourquoi pas ñu tudee ko cartel kàngam rek ñëpp daanu ci suuf di ma reetaan. <laughs> parce que waaw. foo foo jëlee inspiration parce que tamit boobu ma am naa benn maturité bi jàng naa xam naa luy kàngam xam naa luy cartel cartel groupe la. cartel mooy groupe comme mbooloo rek. Mhm. mooy groupe ñi ànd. Mhm. kàngam mooy borom bopp yi. Mhm. comprendre mais ñoom kàngam c'est le savant. ñoom il savait pas moo mot léegi nag ñu may reetaan boobu ndem si yàlla papa yadd Moustapha yadd ma koy ma paix naam moom sama mën naa ne sama idole la sama lépp la ma dama koy dafa am xam-xam quoi dama daan dem mu may conseiller di kii léegi nag biñ ma reetaanee ba ñibbi papa yadd ne lu ngeen di reetaanee Moustapha mu ne leen ñu ne ko moom dane nañ jël sunu group bi tuddee ko cartel kàngam mu ne leen cartel kàngam moom fu mu jëlee moo ba est-ce xam ngeen luy cartel gars ne ko non mu ne cartel mooy group mais kàngam bi mooy borom xam-xam yi gars yi ne ko ah après nag mais gars yi bëgg nañ ma humilier di ma tooñee kàngam ko fu ma rom ñu naan ma kàngam kàngam ma dem sama page Facebook changé ko def maestro la kàngam parce que dañ ma doon jéem a euh, humilier ma jël loolu def ko def ko def ko valeur man nit ki arme parce que nit man nit ki soo may tooñ ci benn affaire mhm. des fois damay jël affaire bi aaki moo ko pour mhm. yow dootoo ma ko ci dootoo ma si tooñ mhm. loolu mooy nit ki loolu mooy exploiter les choses bi nga xam ne yow moom lañ lay def pour pour rendre la faible nga tu deviens fort pour ça donc bu ñu comprendre maestro la kàngam foofu la. foofu la jógee waaw. ci say début wax sànq bi ngay def sa story nee nga Stéphane Kabou moom moo la influencé ba nga egsi fii nga egsi fii tey. ba ma dugg ci musique ba nga dugg ci musique. voilà moo ma influencé te temps boobu instant xale nga woon xamoo woon dara ci musique ak yooyu. waaw ñun ñaar ay morom lañ rek. Mhm. moo a influencé moo ma topp xam nga moom moo ma gënoon nekk au japason parce que moom da daan déglu rab yi da daan déglu ay affaire booy nañ def rab nañ def lii. moom moo daan andi texte sax may way mhm. comprendre des fois mu ñëw jox ñu texte ñu way ci affaire yooyu noonu mhm. mais loolu moom moo ma andil xaw ma ne woon don bi mu ngi fa woon mhm. parce que man rab laa doon njëkk def di rab di rab mais nakate man yàlla may na ma baat bu neex jour bi ma wayee nag la ma gars yi yow da nga yor da am baat bu spécial quoi boobu ba léegi maa ngi koy exploité bu la yàlla mayee doon nag da ngay bàyyi la nga xam ne mënoo ko bu baax <laughs> waaw parce que loolu dinañ ci ñëw sax euh, maestro ñu nekk senegal ku wax musique sénégalaise wax mbalax ñu dem ba seetlu à un certain moment que ne mbalax bi dafa envahir dëkk bi ba nga xam ne des fois nit ñi dañ doon posé wu la question à savoir est-ce que un jour musique sénégalaise dina percer au niveau international parce que bu ñu xoolee mbalax mi kese moo fi ne ñu dem ba benn instant des jeunes talents comme yow ñëw ak beneen concept ñuy dégg beneen air boo xam ne beneen rythme boo xam ne bokkut ak mbalax bi dina am mbalax gaa mais dina am beneen beneen beneen tonalité yow déjà yow sa style de musique fan fan nga ko jëlee sa style de musique. man sama style de musique moom man maa ko créer sama bopp. ah bon. man bokk naa ci artistes yi njëkk jël ay sabar ak ay genre affaire yi di ko def si seeni son maanaam rythme sénégalais parce que dafa am rythme ethnique maanaam tukuleur bi joolaa ku nekk am nga sa rythme bopp ak genre musical. genre musical ak instrument musical. Mhm. instrument musical yi soit dafa am bu tubaab am bu am bu traditionnel. Mhm. man damay jël instrument traditionnel ak rythme ethnique di ko dugal ci musique moderne. Mhm. loolu laa tuddee SN beat SN beat boo ko déggee da ngay dégg Sénégal beat. te loolu c'était depuis Diourbel. mais comme xamuñu ma woon. peut-être am na après ñu ñëw di def comme li may def. parce que ba ma ko daan def Diourbel saaga nañ ma ba tooy. yaa yàq musique bi mbalax affaire yooyu comme ni ñu daan def Fata rek. mais ah. parce que daf ma jaral ma dem école nationale des arts jàngi ah, mais man bëgguma ñuy critiquer mbalax bi parce que mbalax c'est de la musique mm-hmm. musique musique dafa am signification am na ñu naan la musique c'est la euh, c'est la manière de euh, naka laa ko mën a tuddee euh, c'est c'est ce qui sonne bien à l'oreille quoi mm-hmm. mais la musique moom mooy kii bu gën a terre mais aussi la musique c'est l'art consistant à arranger et à ordonner les sons et silences au cours du temps loolu euh, loolu mooy euh, définition bi nga xam ne moo gën a moo gën a approfondi quoi parce que musique du wax kase mais silence da cee bokk parce que da gis nit ku way jekki-jekki rek noppi noppi des fois di nga doggu ma des fois di nga gis ay clip moo xam clip boo xam ne des fois di nga gis geste boo xam ne rek sans pour autant borom wax mais di nga xam na signification dafa am waaw dafay dafay jox valeur musique bi ngay def man sama way yëpp man du ma ñëw rek di ratatati ratatati chaque jour damay am fu ma noppee damay am fu may noppi. Mhm. ci musique bi pour ñi ñi di dégg les mélodies. Euh, yàlla lim ma dimbalee mooy daf ma yor daf ma may baat ba nga xam ne baat bi dafa dafa traditionnel. Mhm. ma koy teg ci n'importe quel genre musical boobu ku ko dégg di nga xam ne ab sénégalais mooy way. Mhm. juste mbalax mbalax bi problème bi mu am. c'est que problème mu kii la euh, contre euh, temps fort ak temps faible. parce que boo gisee musique à quatre temps. mbalax am na musique à quatre temps comme hip hop. Mhm. mais euh, euh, boo gisee li international mooy temps fort bi. Mhm. gars yi dañ ci ci la ñuy ci la ñu war njëkk basé wu balaa ñuy dem ci temps faible bi. Mhm. alors que mbalax temps faible bi lay jiital comme ça su bu dee rab la da nga naan ging ca ging ging cag ging bi mooy njëkk. alors que bu dee mbalax la cag bi mooy euh, cag bi mooy njëkk. comme ça nga ne cag cag cag gin gin gin gi mooy dem ci ginnaaw. léegi nag bu dee tubaab la wala keneen bu bëggee fecc temps boobu moom li muy xaar mooy temps fort bi mm-hmm. moo tax muy fecc en contre temps buy fecc day mel ni kuy kuy kuy déraper alors que moobu mi ngi wër temps fort bi lay wër loolu rek mooy différence bi moo taxoon Souleymane fay naan sunu mbalax bi nañ ci def pied mm-hmm. maanaam premier pied temps bi boo gisee sama son yi day am lu mu mbal lu mu am rythme mbalax wala tradi day am pied bi day am ñëpp koy mën a fecc mm-hmm, loolu mooy SN beat man maa ko tuddee noonu peut-être ku nekk am na yeneen sénégalais beatmaker yu koy def mais am na neneen lu ñu ko tuddee. bu ñu comprendre la yow sa sa style yaa ko créé sa bopp. maa ko créé sa bopp bu ñu ñëwaatee ci ci style ba léegi say début comme ni maa ko waxee gisoon nañ ne style bi nga am léegi ak boobu ute woon na est-ce que danga ko def comme ni nga ko expliqué léegi. Mhm. pour jaay sa musique au niveau international wala sa tampon la sa marque la boo xam ne yaa ko utiliser xam nga musique moom day dox. Mhm. musique lépp ci àdduna day dox. Mhm. muy muy oto oto yi nga daan oto yu bees yi ngay gis léegi sax ak oto yu njëkk yi bokkul te pourtant yëpp oto la munoo ne bii du oto munoo ñëw xas oto bii fekk lépp la muy def la kii di def mhm. mais dañuy évoluer di yokk di defar musique nag noonu la demee musique bu njëkk ba ak léegi dafa am changement mhm. na donc euh, da ngay gis euh, ci côté boobu noonu yow artiste bi munoo ñëw defandoo lu ñëpp di def mhm. tu essaies de te démarquer et eh, il faut sa démarquer pour sa faire remarquer. Mhm. boo ñëwee di def li ñëpp di def. nit ñi duñu xam duñ la bàyyi xel mais boo boo boo ñëwee andi sa touche personnelle loolu il t'est propre yow yow lañ ko xamee loolu mooy def différence bi parce que talent moom manqué wul Sénégal ñëpp am talent. waaw non macha allah jeune talent yi bëri nañ. bëri na fi voilà te wax dëgg yàlla musique bi indi nañ ci beneen beneen touche personnelle boo xam ne tey jii peut-être au niveau international ñi ngi commencé découvrir mbalax bi d'une autre manière sax mais mooy loolu. maestro ba léegi bu ma ñëwaatee ci say wëy ñu gis ne euh, à chaque fois say chanson say wëy dafay am kii nii nu mu tudd tiitre titre wëy yi day particulier mm-hmm. tey su ma jëlee par exemple sama pizza mm-hmm. wala ma jël zéro wala ba ci mulaace git bi nga xam ne temps yi mu ngi toj aat bi macha allah waaw léegi yow titre yi c'est choisi au hasard wala da nga nekk c'est quelque chose qui est étudié boo xam ne da nga koo xalaat ba pare pour pour pour door koo utiliser waaw man titre yi sax koy étudier man du ma bàyyi dara man boog su may def son bu ma defee way bi dinaa xalaat clip bi dina xalaat titre son bi naka la ko nit ñi di déggee seen nopp mhm. lépp dama koy calculer mhm. parce que day particulier imaginez musoo gis ku fii Sénégal ku ñëw tuddee son mu zéro non moo tax moo tax ak sama pizza sama mu laa Cegin love 8 mhm. euh, mars 8 mars ay ay ay ay takk ma takk ma moom am na bari na mais am na son titre nga xam ne yow yaa koy choisir sa bopp pour mu am benn particularité quoi comprendre nga noonu la demee man sama sama son yi noonu la titres yi dama koy calculer waale parce que tamit am na titres yi nga xam ne day neex ci nopp da koy dégg rek zéro. zéro kii lu tax mu jël son am tuddee ko zéro xam nga ba pare da ngay wut tamit ay sama sama man moom bi ma gën a marqué sama pizza. waaw sama pizza gars yi dañ daan wax sama jant sama kii moo tax ma bëggoon changé ay sama crêpe. sama ananas sama man ma def sama. yow nga ñëw daal sama pizza sama pizza boo ko doon wër. Mhm. ci internet bi pour pour teel a gis. son bi boo tàppee sama. Mhm. teg ci pizza force sama son mooy njëkk ñëw. waaw loolu technique la pour tamit ñi ñi. pour pour booy pour ngay sa son bi pour nga gis ko day yomb. Mhm, comprendre comme ça boo nee El Maestro zéro. munoo wax ba sama son du ñëw. du ñëw mais boo nee El Maestro sama pizza munoo wax ba sama son du ñëw. ay technique la pour yombalal ki nga xam ne moo lay suivre. pour mu teel a gis sa son. yooyu tamit dañ koy calculer waale. waaw ba tey maestro bu ñëwaatee ci say wëy ñu gis ne texte yi macha allah paroles yi riche na trop macha allah maestro moom mooy bindal boppam ay texte am dafa am ñoo xam dafa am ku koy bindal. maay bindal sama bopp sama son. yaa bindal sama bopp sama son. mais inspiration boobu foo koy jëlee. parce que loolu moom mbiru mbiru yàlla la mbiru yàlla la. parce que yàlla mën na la may don. Mhm. ngay bind di joxe. Mhm. mënoon na ko may keneen. daf ma koo may rek ma koy exploité. mu may ma baat bu neex ma koy exploité mënoon na ko may keneen bu boobaa man du ma kenn du gis particularité boobu mhm. mais man la ko may mhm. donc dama koy exploité mhm. yàlla moo def man dama mën bind ci tem loo ma jox mën naa ci bind du ñàkk nag des fois nit def benn son bu nice bind ko ñëw jox ma ma gis ne lii dafa nice ma way ko mais ça ne veut pas dire mënu ma bind moo tax ma jox ko mu def ko mais parce que man damay bindal sax ay nit son foofu laa damay bindal ay nit son damay defal nit ay. tarif des ay artistes ay artistes euh, contacté la pour nga bindal leen ay. waaw il il m'arrive ay artistes contacté ma bind ma bindal leen son ñu fay ma mais xam nga loolu du looy looy wax naan diw man maa def son bi maa def loolu c'est pas professionnel quoi. Mm, mm, mm. parce que loolu amul solo parce que artistes yi gën a mag ci ci dañ leen di bindal texte. ñoom duñ def dara dañ leen defal sax top line. maanaam day am ku jóge fële. mooy way way bi yëpp yow da ngay ñëw rek. ñu jox la texte ak ni ñu koy wayee nga way yow daal yaay doon vitrin bi mais derrière toi am na ay liggéey bu bu bu graaw bu nekk sa ginnaaw mm-hmm. loolu ci milieu showbiz la mm-hmm. du ñàkk jom du ñàkk expérience du ñàkk ah, dara mais des fois nit sax du mënee fépp des fois di nga mënee fii di nga neex baat mën a woy te doo mën a bind voilà gis ko fi du benn du ñaar bëri na fi maestro bu ñëwaatee ci sa début carrière mm-hmm. ñu gis ne génnee nga quatre albums deux en solo trois albums waaw trois albums ah. Mm. deux en solo ak benn deux en groupe ak benn en solo. groupe boobu lan moo tas lan moo tax mu tas. deux deux en solo la. deux en deux en solo ak benn en groupe. d'accord deux en solo ak benn en groupe. Mm-hmm. léegi ñu dégg ci fort ci weewu béy xam nga ñun moom dañuy dañuy dañuy dégg dañuy dégg rek. ñu fort ci weewu béy ne groupe boobu affaire xaalis moo leen tas. mais comme tungu ne du teew ñuy nataal ñu bëgg nga expliquer ñu mm-hmm. lan moo tax seen relation boobu lan moo tax groupe boobu dematul. nga yow nga jël sa carrière en solo. non xam nga musique moom euh, dafa amul sentimental am amul sentiment. Mm-hmm. Euh, loo war a def. Mm-hmm. musicalement da nga koy def. Mm-hmm. ay xaalis moom man moom xaalis du ma booleeg nit. te ñi ma ñi mës a àndal xam nañ loolu. muy màgg daan bi nga xam ne moom laa bokkaloon group xam na loolu. ak keneen ak keneen. man nit boo naree xëccoog man sama alal sama balaak moom. donc par man mënuma gëm ne nit ñi moom di nga dégg lu ne. mais man li ma lay wax mooy on est séparés musicalement. parce que ba léegi ñu ngi garder contact yi su ma demee Diourbel damay dem seen kër donc kon pour man euh, tasuñu en tant que nit ak nit mais dañu tas. musicalement peut-être ba bokkatu leen gis voilà day am loolu ça ne veut pas dire que nous sommes des ah, ennemis. loolu loolu loolu mooy àdduna. ñaari nit sax dañuy génn dem ba mënatuñu nekk ñu bàyyante. dëgg la ça ne veut pas que mm, ay noon ngeen. Mm, parce que da ngeen di tase sax da ngeen di dem ba am doom sax. après dangeen ngeen di continuer kii am jëkkër kii am beneen jabar mais tamit da ngeen di continuer di gisante ndax seen doom boobu ça ne veut pas dire que ay noon ngeen kon daal li gars yi di wax ne affaire de xaalis groupe bu tas moo ko tas yéen yéen dalu leen ñun bokkuñu man de bokku ma si man de dund dund ma ko wax dëgg fa yàlla maestro ñu gis ne sa premier album solo yaa ngi ko tuddee Djily Guène Djily mhm. lan mooy Djily Guène pourquoi Djily Guène boo ñu doon expliquer tey Djily Guène lan nga ñu ciy wax waaw Djily Guène mooy boo ko tekkee en français mooy semer de bonnes graines semer quelque chose de bon ah, quoi ji li gën ji li gën ok d'accord maanaam booy booy booy booy ji dara waaw waaw ngay ji boo ji lu baaxul uh-huh. doo am lu baax dëgg dañ koy wax sax qui sème le vent récolte la tempête mm-hmm. léegi nag munoo récolter loo jiwul dëgg la yaa ngi dégg booy jii nag da ngay ji lu baax te jii lu baax loolu noonu dañ ci dama ciy gis dans la société jikko yi des fois dañu war di ji lu baax ci ci domaine yëpp moo tax ma tuddee jili gën mais jili tamit boo dindee L bi li bi lii bi boo ko dindee. nekk jigéen jigéen la lay jox. man sax bu njëkk sax bi avant maa comprendre loolu laa ko tegoon ji pour man en fait jigéen jigéen jigéen jigéen. jigéen mais dañ naan jigéen mooy jili doo dégg paa yi bu ñu des fois bu nit di sëyi dañ naan ko jigéen kat mooy mhm. jili gën. mooy nga ji lu baax. dëgg la parce que boo demee sa sa sëy la fay sëy. moom ku sëy say xaw ma lan yàq say doom. xaw ma ku ñulu sa jëkkër yàq say doom say doom voilà dañ koy wax. maanaam mais boo sëyalee sa jëkkër lu baax da ngay am lu baax. Mhm. donc yow yaay yow yaay ji lu gën. Mhm. léegi nag ci kaw ji li gën yooyu boo déggee thématique bi. Mhm. way naa ci bàyyi li ngay def. maanaam ñiy jël jigéen ñi am ak ñoom ay moment d'intimité filmé leen di ko def ci internet bi xam nga loolu lu baax. donc kooku dafa war a ji gën. comprendre nga euh, ñiy violé waate affaire yooyu ñoo noonu cungaa kooku dafa war a ji gën. del wax ni jaay loolu lépp ci ay xeetu ji la. comprendre nga yaay yaay mooy lépp. maanaam thème yi day. day dafa dafa dajale ay thèmes yu bëri. voilà yëpp ci ji lay doon quoi. te boobu dama ubbee yaay tëjee papa. Mhm. maanaam dama ubbe yaay premier son bi yaay la fin bi dernier son bi papa la. ñoom dama leen ci rendre hommage. ok sa deuxième album ba tey bu ñëw mu tuddee nga tuddee ko 8 mars. waaw ci biir 8 mars bi tamit. am na huit mars en même temps wëy te ku wax 8 la femme mhm. euh, dafa nekk danga doon rendre hommage jigéen ñi wala pourquoi album bi nga tuddee ko 8 mars dama doon revendiquer damay revendiquer mhm. dama doon revendiquer rendre du du hommage bu ma rendre mhm. hommage la en même temps mais revendication la parce que gars yi ñu bëri dañuy jaawale 8 mars parce que 8 mars bu jotee ñëpp ñëp ñëpp seen yaay la ñuy jël di ko photo di ko dugal naan bonne fête des yaay yow yaa maa la bëgg maa lii maanaam Sénégal dañu jaawale. fête des mères ak ak 8 mars alors que mm-hmm. euh, fête des fête des mères bokkul. 8 mm-hmm. mars mooy journée international des droits de la femme donc pour man journée de réflexion la war a doon journée de sensibilisation mm-hmm. nekkul journée bu ñu war a féete mais journée bu ñu war a gëstuwaat xoolaat nekk ni xoolaat droit yi la façon bi ñu war a nekkee ak jigéen parce que 8 mars bi maa ngi naan maa ngi naan promotion canapé moom moo ngi toj dëkk bi moom li ma koy teg moom moo may sargal 8 marché mhm. xam nga nag comprendre nga fi lay teg ki lay teg naqar métit 8 mars bi moom moo la koy feeteel ma ne loolu pour man c'est c'est totalement paradoxal et c'est de de de l'hypocrisie mhm. te loolu gisuma ñu koy wax comme je je fais partie des voix de la des ah, sans voix dama war a wax genre affaire yooyu dañ ko war a dénoncer man moo tax ma wax ko parce que man ak jigéen ñi dañu am benn relation bu yàgg sama yaay moo ma yar am lu ma wax ci jigéen am lu ma jàngal ci jigéen sikk nañ lool mais tamit booy fayantoog ñoom da ko gis donc est-ce jigéen ñi dañu sikk yàlla ci boppam moo leen suturaal mais ñoom xamuñu xamuñu loolu donc mais ñun suñu yoon warul nekk ci loolu ci lan la lañ war a li ñu war a seq ak ñoom loolu la ñu war a la ñu war a xool na rafet na am yërmande na am lu bëri yàlla àdduna du neex a neex a neex a neex ba ñoom ñu nekk au-dessus de l'homme mais tamit nit ki dafa ni nga jàppee jigéen da nga war a jàppee comme sa doom ni nga koy sériré mm. noonu nga war a def sa jigéen pour man noonu la waral adduna bi noonu la nga bu tëddee woon noonu kenn benn jigéen du fippu di ñoddi wala di laaj yenn affaire yi di revendiquer que ñun dañu fee li ñuy dund yëpp ci métit ak ci naqar au moins ak fi ku nekk comme da nga jël jigéen ki nga nekkal jigéen bi nga nekkal nga def ko comme sa doom mhm. di ko chérir bañ lu ko métti yaakaar naan tey jigéen ñu bëri souffrance bi ñuy dund yaakaar naa duñ ko jigéen ñu bëri dañuy dund souffrance góor ñu bëri aussi dañuy dund souffrance ku nekk ak combat bi ngay mëne man yàlla dafa def man maa far jigéen ñi. moo tax man may nekk ak ñoom ba mu saf saap ñoom laay faral. mais tamit am na jigéen ñi nga xam ne ñi ngi toroxal góor ñi di leen def lu ne di leen violenter et tout nga mais loolu yëpp dañ koy wax mais li ëpp mooy jigéen ñi la ñuy ñooy gën a subir loolu comprendre nga. Mm. donc man fi may waxee mooy. compréhension bi ci fépp la war a demee mm. mais jigéen yàlla ni mu ko def ñoom dañ ko war a def noonu quoi bañ na ko ba yenant bi danaan koo gën a bëgg sama yaay ku ci tegu sa yaay ku ci tegu sa yaay donc daf ko wax ñetti yoon mm-hmm. donc pour man yooyu yëpp du hasard mm-hmm. donc euh, sama combat la c'est personnel moo tax nga génne album bi tuddee ko ñaari album yëpp huit ma bi jiligan bi huit mars kon xam nga mën ak jigéen ñi loolu dafa yàgg maestro ba ñu gisee ba léegi bu ñu taxawee def benn seetlu say son yu bëri presque mën naa ne danga clip nga ko maestro dafa am xaalis <laughs> wala a <laughs> ah, mais ñu ngi koy wax de. ñu ngi koy macha allah loolu de laay ñaan yàlla dafa am xaalis wala nu mu demee parce que déjà bu njëkk pour nga def clip yombul pour nga gis ku la produire sax c'est tout c'est tout à fait un problème. Mhm. maestro à chaque fois gis nañ ne macha allah ay clipam bëri nañ te ay clipam riche na macha allah c'est quoi ton pour man pour man xaalis lijjantiwul dara. xaalis day dara xaalis mënul faj dara. maestro est du mag yooyu nëbbatu parce que lépp dina leer quoi. Mhm. fii jàmbaar amul ku ñu dimbali moo am. Mhm. am na ñaa nga xam ne euh, fu ñu mënti agsi am na ku nekk seen ginnaaw. man clip yi may def nii. Mhm. xam nga nit yi ma am la. man aw ma xaalis mais dama am ay nit. te pour man loolu moo ëpp doole moo ëpp moo ëpp lépp gaay bu nee nit ñi di ut man nag damaa ut nit yi man clip yi ma mës a def yëpp fàttaliku ma fu ma dépensé yenn somme yi même bu fekkee des fois di nga génnee xaalis mais dafa am benn euh, label bu tudd Digit Prod mhm. sama grand kooku mën naa ne nekkatut sax sama xarit wala sama kii mais dañ pour man dañoo bokk ndey ak baay même bu fekkee bokkuñu yaay bi ñu jur mais li ñu naan ma broda fromanaara maara mhm. loolu la mu ngi tudd Moussa Diop xam nga ma koy saluer de passage moom moom moom Digit Prod sama clip yëpp moom moo koy def waaw lu ne lay daj pour man man aussi tamit lu ne laay daj pour moom dañ c'est comme si que ay frère lañ sama kilifa la donc kooku moo nekk sama ginnaaw euh, sama clip yu mujj yëpp moom moo ko def wax dëgg fa yàlla moom moom may jàppale moo ay jàppale parce que dañuy liggéey ma nag moom dama koy jàppale moom ay jàppale parce que dafa yor euh, Euh, dafa yor label yor kii man maay man maay musicien bi foofu maay gérer lépp luy musique euh, ci ci ci label bi ci musique théâtre wala lépp moom aussi tamit lépp lu ma bëgg tamit mu taxaw ci donc moom daf may da man maay employé mais seetaanu ma. seetaanu la moom mi ngi lay jàppale daal mi may jàppale bu baax voilà ah, sant sant yàlla ndax nit moom boo nekkee ci dara. yaakaar naa ne soxla nga soxla nga ku la dimbale te soxla nga ku la teg loxo puus la ba nga dem mm-hmm. kon ñu ngi koy jaajëfal mm-hmm. maestro ñu lay surnommé ambassadeur des enfants ñu gis ne à chaque fois yaa ngi xeex pour xale yi génnee nga ci son génnee nga ci clip xale yi ma euh, maestro ambassadeur des enfants yaa ko surnommé sa bopp wala dafa nekk raaya boo xam ne dañ la ko takkal buñ ma bu mu nekkoon raaya buñ ma takkal kon léegi ma am xaalis imaginez UNICEF woo woon ma wala yenn entreprise yu mag yi wala yenn ONG yi woo ma def ma ambassadeur kon léegi nga commencé ma commencé tukki dem fu ne. yàlla baax mais benn lu moom comme ni ma mel ci jigéen ñi noonu laa mel ci xale yi. Mm-hmm. donc loolu mbiru yàlla la ma bëgg leen. Mm-hmm. di leen défendre xale tamit moomin la. Mm-hmm. il faut ñu leen di protéger. donc bépp menace bu leen yi dal wala lépp lu nga xam ne mën naa ko def pour ñoom tamit dama koy def. donc loolu aussi si samay combat la parce que tamit musicien du da ñëw rek way mumbaay mumbaay dem sa yoon non mais danga nga war di des fois di les consciences mhm. ba pare di di di di wax les maux de la société la malgouvernance la les enfants yi ñuy kidnappé wala genre ak yeneen ak yeneen mhm. bari na lu ñu mën a way même bu fekkee expression du mois am na maanaam di wax di way amour et tout c'est bien beau mais des fois il faut ngay wax li nga xam ne moom la société bi di dund moo moo waral nag combat wu xale yi dafa bokk ci samay xeex noonu la deme maestro tey su ma doon laaj sa diggante ak yeneen artistes yi surtout jeune talent yi sa génération. Mhm. seen relation lan lan nga may doon. waaw dafa nice parce que pour man fi dara méttiwu fi man ni ma nit di jàppee rek laa koy jàppee. Mhm. boo ma wanee ne yëg nga ma ma yëg la boo ma wanee ne yëgoo la quoi parce que fi man du neexal du ma. yéeg yëg moom gis nga nit ki doo ko forcer mu bëgg la doo ko forcer aussi mu yëg la dafa war a naturel lépp looy def na naturel man li may dund ak am naa xaritu artistes yu bari mhm. grand yëpp xam naa leen mhm. jeune artistes yëpp xam naa leen te saa buñ ma gisee ñi respect lañ may jox ñi ma joxul respect tamit jox du ma leen jox respect mais loolu mooy àdduna ñëpp mënuñu la bëgg ñëpp mënoo amal ñëpp relation parce que bokkul quoi ku nekk ak ni mu lay xoolee mais na naturel na rafet man ku ma jàpp ma jàpp la ku ma jàppul tamit du ma attardé wu ci yow du ma la wax lu bon du ma du ma la sax lijjanti noonu la demee kon na naa jàpp ne daal am ngeen relation bu nice yéen a ngi demalante ñi nga xam ne seq nga ko ñi ma ko waaw parce que man du ma toog sax am na ñaa nga ne sequma ak ñoom loolu xaw ma ndax comprendre nga sama parce que mhm. loolu détail la mhm. ñi ma xam ne ñi ngi may ñi ngi maa ngi seq ak ñoom jàmm. wallaahi maa ngi ñoom jàmm. maestro damay defante ba mu saf ci ci boobu. mais defante bi du question da nga ko defante parce que da nga bëri histoire wala genre mais tu le fais parce que bëggoo ku la yeb. nit ki waroo nangu ku la yeb. ci li nga am rek nga mën a jëriñu. Mhm. ci li nga am lan la mën a respecté. mooy dëgg sax voilà loolu la. mais pour man aw ma ak ñooñu kenn problème quoi. mais en même temps en porte en euh, en étant un porteur de voix tey jii bu ma la doon laajee situation dëkk bi ndax tey gis nañ politique bi yëngu na dëkk bi yëngu na sax laay wax. Mhm. en tant que porteur de voix yow situation dëkk bi ci politique bi su ma la doon laaj tey noo ko noo ko gisee lan nga may wax. non c'est déplorable. parce que Sénégal dafa dafa dafa dafa dellu ginnaaw sur le plan démocratique. xam euh, nga rek ba pare dafa bëri ñu ñu dul waxante dëgg. maanaam hypocrisie bi dafa mujj bari mhm. parce que nit day day gis dëgg war ko wax du ko wax keneen di ko wax ñu ne ko yow diw fii nga far alors que ñaar moo am ku far euh, opposition ak état état nag ñun suñu yoon newul ci opposition ñun état la ñu amal affaire parce que état la ñu fal. Mhm. mais état bu deful lu dul yoon boo jógee di ko wax ñu ne la opposition nga faral <laughs> mais soit. dëgg day arrangé ñenn ñi euh, déranger du arranger ñi si des loolu mooy àdduna mais tamit boo état bi bu defoon lu nga xam ne war na ko def ñi ñi du ñu dal si kawam mais dañu gis ne Sénégal de jour en jour dañuy dellu dañu dellu ginnaaw sur le plan démocratique parce que nit ki bu jógee ne dafa bëgg manifester wala dafa bëgg kii yow buy manifester coow du am dara du am yow tu préfères dëkk bi tàkk tere leen manifestation ñu xeex ak yow ba ay nit di si dee c'est déplorable day mel ni yow loolu dalaa neex day mel ni yow bëggoo sa peuple sénégalais. bu ñu déggee bu ñu la déggee nguur gi dañoo fayir dañoo liggéeyul yaa ngi dégg parce que liggéey du question rek defar pont bu rafet wala defar kii mais dund gi da cee bokk la vie la nit ñi ñun ñun population bi nan la ñu mën a nekk à l'aise suñu dëkk. Mm-hmm. te mu nekkuñu ñu à l'aise suñu dëkk parce que dund bi cher na location métti na ñun fi loo am da nga koy defaat ci ci ci ci dund bi doo am sax loo épargne donc loolu lépp boo ko dajalee ci sa bopp bëgg la cee tegal di la mel ni dañ lay def genre dictature da ngay fippu parce que résistance dafa bokk ci ci ci ci ci droit wu euh, benn citoyen mais boo ko fi wootee ñu ne da ngay woote fitna man nag xooluma ku ma bëgg xooluma ku ma bañ ku ànd ak man ànd man ci dëgg. ci ku may bañ na nga ma bàyyi ci dëgg. bu dee li may wax neexu la bul ma déglu wala bul ma kii mais dëgg bi moom fu ma fekk dama koy wax. gars yi di manifester dañoo am droit manifester nañ leen di bàyyi ñuy manifester nguur gi am na ay priorité na ko def. te bàyyi ñi muy bu fekkee dafa war a bëre wala dafa war a dem élection na bàyyi ñëpp dem élection. mu xool ñi ko ñu bëgg ànd ak moom ànd ak moom ku bëggul ànd ak moom ñu foole ko ñu xam ne moom mu liggéeyu mu wàcc keneen ñëw keneen kooku ñëw bu deful lu dul yoon tamit dañuy jógaat wax ak moom parce que ñun ñooy population ñun ñoo moom Sénégal kenn moomu Sénégal du benn nite ko moom du benn famee ko moom man nag samay wax du neex loolu laa am ci lu may wax daal moom dafa engagé carrément moom sur le plan politique politique dama engagé mm-hmm. sur le plan ci social muy jigéen ñi xale yi yaa ko wax sànq ah, waxuma la ko donc pour man nous sommes la voix des sans voix ñun bu ñu waxal ñun ñun bu ñu ñun artistes yi kan mooy wax ah. mais da dem sax di wax sax kenn message la ne la yow artiste nga waroo wax kon nañu lan la ñu war wax nañuy toog fii rek di di wax di feccloo gars yi di kii loolu du pour man loolu nekk ay porteur de voix loolu du suñu rôle dañu war a wax ku deful yoon dañ lay wax ku def yoon ñu ne la bravo ku fi def lu fi kenn deful nag soo wàccee ba pare mën nañ la way man ku man Sénégal moom bu fi nit defee lu fi kenn deful boo wàccee dinaa la way loolu moom mooy maanaam gàcca ngaa laama moo loolu lañ naan boo fi deful dara kenn du la way kenn du la way man nit woo na ma di ma way way ci opposant yi pour ma way ma ne ko lan lañ ma defal ba ma leen way dëgg dëgg toju ñu fenn ba ma leen way nañu dem ba yor nguur gi ba liggéey fi lu ñu war a liggéey xam ne bay sénégalais yëpp kontaan bu boobaa dinañ leen mën a way man man wayuma kenn benn politicien mm-hmm. je si suis je suis apolitique. Mhm. faruma ci benn parti. mais tamit damay toog di xool ku liggéey ci dëgg. Mhm. ku dëgg ci dëgg laa far. boo defut lu dul yoon dama koy wax boo naree jaay nit ki doole dama yaa ngi jaay nit doole. Mhm. pour man loolooy dëgg. mais ay yee fitna fi fi kenn yeewu fi fitna. wala kon Lat Joor ba mu daan xeex. sëriñ Touba ba mu daan xeex ak tubaab bi. wala Baye Niass wala Samori Touré wala ñi nga xam ne lay résistance du Sénégal ñooñu kon xanaa dañ doon yee fitna. yenent bi ba muy dem xare badar xanaa dafa demoon pour yee fitna te pourtant dafa dem ñu gaañ ko xeex ci ak yeneen am ñu fa dee mais ñooñ bi ñuy xeex du woon pour ñoom pour ñun la pour ñun ñii la woon mais daal man daal damay mujj ah, mu bëgg waaru quoi dégg nañ la mais bu ñu ñëwaat dellu soité ci musique ba léegi maestro est-ce que musique euh, fay na la carrément est-ce que musique mi ngi fay musique Sénégal moom mm-hmm. ñun moom ñu ngi sant yàlla mais musique Sénégal moom fayul mm. fayul de ah. fayul tous man maa la wax loolu maestro maestro gars yi waxuñ loolu de. ah ma mais am na ñu may dégg ne nañ ah ñi ngi ñi ngi ñi ngi ciy gis seen ah, bopp de. mën na nekk mën na nekk kon peut-être ñi ñi fay ñi ciy lekk xaalis bariwul te ñooñu ñi ciy lekk loolu. peut-être dañ jàpp ne ñoom loolu lañ mérité mais amaana mérité nañ lu ëpp loolu parce que boo xoolee yeneen dëkk yi gars yi ni ñuy lekkee xaalis demeewul noonu Sénégal parce que Sénégal on fait la promotion de la crité te boo xasee siw yow la ñuy joxoñ xanaa nga liggéey liggéey liggéey ba tàkk yow boo xasee siw moom siw nga boo doon way naxa sa xandang sax dañ lay topp mais sur le côté sur le plan euh, euh, xaalis entreprise rek ñoo la mën a fay xaalis ñoo la mën a woo sponsor yi voilà man voilà nga xam nga ay publicité ay pour man foofu moo am xaalis mais boo defagut say preuve tamit mënoo tamit lekk xaalis ci musique xam nga ndax comprendre nga fi may waxee voilà te preuve yi preuve yi pour def preuve Sénégal dafa métti pour def preuve Sénégal dafa métti parce que du talent kese mooy tax nga siw il faut que yàlla may la nga def benn affaire change bi daf cee bokk apprécier ko bëgg ko après nga nag nga commencé di lekk ndànk-ndànk ci xaalis bi mais pour l'instant nii nii maa ngi sant yàlla de. wax projet mooy say waaw samay projet mooy. mooy ci li ma nekk nii quoi parce que dama génne album 8 mars bi promotion bi parce que promo du doy bi mu génnee album bi un mois rek la def mais mu fekkee gars yi ñu ngi koy déglu promo la alhamdulilah damay ñaan mu gën a yokk. ñu nekk ci promo bi nekk ci clip bi waajal concert yeeg affaire yooyu quoi. maestro egsi nañ nag ci suñu fin émission mais nag laataa nga tàggatoo ñun mu laajte gi moom mi ngi toj dëkk bi fi mu toll nii bëgg naa nga defal ci benn a cappella bu neex nga wax nga tàggatoo waale sa moo della fin. waaw maa ngi nuyu waat internet yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp maestro la woon ak Dija ñoo ne ñoo nekkoon tey di leen def ak yéen émission bi ak waa DS Prod voilà sama mot de la fin dama naan rek la famille ou la mor je vaincrai et eh, pour wayal leen mu laay cegin bi nag waaw comme noo ko bëggee rek. dama joŋee ba exagéré ni ma sëyee da particulier bu guddi jote ba néeg bi wéet maa ki feccal mu lay cegin du da nga joŋee ba exagéré ni nga sëyee da particulier bu guddi jotee ba néeg bi wéet. yaay ki may feccal mun lay jegin ay eh waay mun lay jegin internaute DS Prod lii lañ leen indiloon tey ci seen émission micro pour mu nekkoon suñu premier numéro ngeen àndoon ci ak seen xarit Dija Saliou di leen jox rendez-vous très prochainement ci seen beneen beneen numéro